Cheikh Ibra tuddee na ko doomam Seydina Ousmane kii mooy yar woy juram maam Marema sëy si kii keppaaram la bawoo dem ci noo am fay ndamam kii mooy soxna Penda Njaay Jóob jëmm ji la Cheikh Rafal waxoon fekkuma sëñ Bamba di seexal jigéen nekkoon ma def la na muy def góor pendal mu mën tubay daan ko wooyee moom Cheikh Rafal muy wundu jigéen bu mën góor soxna Penda mi amul morom daana jox addiyey junni Cheikh Ibra Fall cey soxna si daana yor lim si soxna yi defar leen bañ mat a sëy soxna Penda Njaay Jóob góor la am na gërëmal Cheikh Ibra yàlla na buur yàlla borom ba yokki leeram te tas ñu ci barkeem